ah. sori yow yaa ngi am liggéey ñun amul liggéey. waaw loo def. sori sori dama bëgg a jàngi. da nga bëgg a jàngi. waaw. yow GTHI ñu ngi fi Gambia Tourism and Hospitality Institute. ñan ñooy ñooñu. ak lan la gars yi di def. ñoom ñooy di foma Gambia Hotel School ñooñu ñu ngi exist ba tey di def ay courses yu am maanaa. yan course di ni housekeeping. Hmm. and laundry. ak lan nga am front office and events. ak lan nga am ah, wa restaurant and bar mooy food and beverage service. ba pare dañoo defar ay events ay cocktail yu am maana ay beverages yu amut fenn. ak lan ñooy def yooyu nga am professional cooking. ñi ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir waañ bi. ñoom ñooy tooga ba pare tooga bi du just local dish but international dish si la bokk tamit. yaa ñu ay halls am garden bu mag for events and catering services suñ ne events and catering services li ñoo wax mooy maanaam wedding graduation ceremony meetings be it both local and international nga bëgg am meeting mun nga ko faa defee ñu ngi amee benn course bi ñu ooyee Ida bakery training waaw baa suma tukkee dem Europe dinaa ko mën a use hay am na ndaw ñu bëre ñun suñ ñoon ñom dem nañ fiba ba ship, di fa liggé di daan doole di ñëw di taral seen waaj boobu benn la ñaar ñu ngi amé lo xamanteni mom la ñuy sama kukri yow mi nga xamanteni ya nga tok ci kër bi amut age amut lifé amut ah, kate mun nga ñëw ñu jangal la practical only nga ñëw nga def sa 3 months ah, practicals nga am sa certificate hanani hatina neex na ba no podole la gay ne gañu ngi kaanifing kani fil fan si kani next to child phone mbi road bi wala post office road bi boo ko taaleeree rek ñoom foofu la gaay nekke seen number si itam boo leen bëggee woo mun nga leen a collège to 439 2264 wala mun nga leen a amee ci 3159479 479 GTHI rek si kaw sa kanam